nit ñi nga xam te naka dañ am jàngoro sickle cell dañ leen di xoolee ne du ñuy am fan bu gudda waaye naka terewut am na ñi nga xam te ñu ngi am jàngoro bi te ñu ngi dund ak moom di faj seen soxlay Louis S.A. Alsan nekk na ki nga xamante ni ci ay weer yu passé ci gannaaw lañ ko waxoon ne am na jàngoro sickle cell ci ay kàddam wax na ne man dama foogoon ne pneumonia laa amoon parce que dama daan faral di tëdd si ron faan waaye nag guddi bi nga xamante ne balaa ñu may wax ne am naa jàngoro bi dama demoon si lopitaan bi maag sama xarit dañ doon doxantu rek mu ne ma pour ma jaar si lopitaani Serekunda pour ñu seetlu ma parce que mu ngi jàng noosin bu ma demee ñu seetlu ma ñu wax ne naka suma deret bi dafa wàcc ak yeneen yi docteur bi wax ma ne loolu du lu war ma wax leen ne damay faral di am gannaaw buy métti ak suma yax yi di métti docteur bi nag jox ma beneen bés pour ma dem seeti loppitaan bi nga xamante ni foofu la ñuy nataalee dënn yi bu ma demee ñu nataal suma dënn bi docteur bi wax ma pour ma dem seetlu feebari sickle cell ma wax ko ne man aw ma jàngoro bi ba pare ñu ma dëkkal yëpp kenn amut ko mu ne pour ma dem def ko ma dem def ko ne am gëm-gëm bi ne aw ma jàngoro bi waaye nag bi ñu defee tas bi ba pare ñu gis ne am naa ko Louis continué di wax na nag jàngoro bi terewul mu ngi dund nu mu war a dundee si ay kaadam wax na ne maa ngi toppatoo suma soxla yëpp waaye terewul nag dama dee am i jafe-jafe terewul dama dee seet yëre yi nga xam te moom lay sol yenn say nag su may génn yeneen place yi daf dee faral di sedd sakatuma si taatu pere faral di yëg suma biir yaram yi waaye naka li sonnalul sama liggéey bi ak sama jàng bi Mariama saw moom tamit nekk ki nga bi feeñu woon nag bu muy am juróom benn at dund ak jàngoro bi ni terewul muy def oh, muy lijjanti ay soxlam wax na ne dund ak jàngoro bi ak ay jubarisi yu bari ci at yu passé nii terewut mu ngay doxe ay soxlam ci ay kàddam wax na ne am na ay jumtuwaay yi um, nga xam ne dañ ko def suma loos parce que duñ dee gis suma sidit ngir dafa tuuti torop moo tax ñuy faral di jël jumtuwaay yi nii di ko def suma loos bi lii nag indil na ma coono ci suma wàllum jàng parce que yeneen saay du may faral di def suma examen ak tes ba pare yeneen classe yi sax duma fa dee nekk waaye terewul maa ngi xeex ak jàngoro bi lii nag terewut pour may faj sumay soxla Louis ak Mariama ñaax ne ñeneen nit yi nga xamante ni jàngoro bii nii feeñ na ci ñoom pour buñ ko ngir coono jàngoro bii nii jàngoro sickle cell nag nekk na jàngoro bi nga xamante ni dañ koy donn mu nekk jàngoro bi nga xamante ni tamit daf day sonal sidit bu mag bi nga xamante ne mooy yóbbu deret bi jàngoro bi nag dañ ko dee fajee ci garab buñ naan mofin pour wàññi métit bi kibaaru ko ci barma fii ci Paradise TV Awa Touré